sama doyen maa ngi fi am ki nga xam ne mooy Thiandoum numéro 2 ñu koy wax Malick Thiandoum tóndoo Malick Thiandoum la mbokk yi ma bàyyi leen ñu nuyoo ñu wéyal waxtaan wi mun nañu njëkkee ci kan ci yéen ñaar sax Seydou nuyu naa la. waaw ma auzu billaahi mina seytaani rajim jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf si Ahmad Bamba Khadim Rasoul gàcca ngaalama si Ahmadou Karam Mbacke nooree maa ngi sant sama Serigne Serigne Khalil Mbacke bu wér-wér di ñaan yàlla saxal ko fi di sant bu wér a wér a wér maam borom daaru nooree nii sama papa sama xarit suma lépp di nuyu waa daaru Moussi di nuyu waa Kër Massar fi ma jóge di nuyu waa école de lutte Boy Sey bi yëpp di nuyu suma kër sa baara suma kiin King di leen nuyu bu baax a baax di nuyu booy nekk école de lutte bi yëpp. waaw. yaay tëdd defal kii Boy Sey. <laughs> non man maa ngi foofu rek du ma fa dërëm. non yaay tëdd defil bi gannaaw Boy Sey daw na dem. ay ñoom dem dem dem Mor Mori ji kay. ay ñoom Sakess a ngi fa ay Xamsa gars yi ay vieux gars yëpp a ngi foofu. Sakess kooku moom sama copain la. waaw ay ñoom Papa Cité booy yooyu noonu. am na combat bu ñu xam ne Papa Cité diggante ak Franc. waaw day daan incha allah. day daan Franc. yàlla mbir day am ndam incha allah. Hmm. Thiandoum nuyu naa la. ausubillahi mi shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum ma leen ziar ji leen bëgg seen wàcc waay ji leen ñaanal jàmm rawatina waa géej waay gi ma jógee ji bëggee ñëpp di ziar ak ziar sama doomu ndey bàyyi laat di ko ziar bu baax di ziar booy sëy maa ngi koy bu baax ji la ziar yow it naa la bu baax a baax waaw naan la sowaay bienvenue dal jàmm bisimilah gis nga mbokk yi sowaay bienvenue dal jàmm balaa balaa balaa balaa may sooy ci waxtaan bi sax damay njëkkee ci Boy Seye ndax moom defe naa ne toog nga ñaata at bëréwoo Boy Seye yow sa combat dafay metti ba noppi boo ci jógee sa combat dafay yéex a taxaw lan mooy problème bi. non man. téyel micro bi. gëju ma gëju ma bëre sama combat Youssou Ndour ma si jógee sama combat gàkku moo taxaw. gàkku géej waay. voilà après Covid bi moo ko yàq. Mhm. Covid bi ba léegi nag saison mi ngi doog a dawaat normal. maa ngi woon si contrat man ak Tafa Leer waroon ko bëri la vingt février bi nii biñ demee ba combat bi des ay quelques jours si lañ ma woone ma Tapha Leer bërëm leeratul. loolu leeratul waaw. te waxoon ngeen ba ba déggoo ci kàddu. non man wax naa ak ñi ma war a waxal daal en tout cas suma ménagère ak ki nga xam ne mooy Maawa ñu waroon ko bëre si combat la vingt février bi. guy gi ak waaw. yéen woon bi yaakaar naa. ñu woo ma ne mu bërëm leeratul. man moom pare woon naa pour bëre préparé woon naa bu baax nekk si lu ma waroon nekk dont ko jotuma woon avance mais xam nga maa ngi doon préparé parce que maa ngi sumay grand yoo xamante ne bii dañ ma doon jàppale bu baax financièrement. mais nag man li ma ci xaw a jaaxal man dama ci gis mbër yoo xamante ne dañuy annoncé ne sama combat taxaw na annoncé ko mu def deux doo jot avance doo jot daa nga nekk di préparé. seen loolu soo ko gisee xam nga lan la man moom dama dama dama yoreloon. Euh, ki nga xamante ne bi moom mooy suma ménagère xaalis. da nga ko yoloon xaalis. waaw comprendre nga si combat bi yàqu woon bi. Mhm. comprendre nga. Mhm. bi ñu waxtaanee ba juboo ñu mais nag mais attends combat boo xamante ni jox nañ la avance Covid ñëw defe naa ne loolu du sa coobare kooku waratoo ko amel xaalis. non c'est que ci ni mu yàqoo la quoi. na la yàqoo. Covid bi bi mu ñëwaatee promoteur bi bëggoon na ko tëggaat. Mhm. bi mu jeexee. yaa ngi dégg. mu ne ko da ñuy dolli mu ne moom loolu la mun a joxe. ma ne ko man pare naa pour delloowaat ko xaalisam quoi. ok pour dem seeti leneen. en plus adversaire bi arrangé tu woon quoi. ban adversaire la woon. gàkku gàkku waaw parce que làmb boole wuñu amaana dama jóge woon si defe rek bëgg a fay coow li ma taxoon ma jëloon ko mais bi combat bi yàqu am naa yeneen sama yeneen morom yi ma war a bëreel si làmb. yaa ngi ci ñaata komba maa ngi quinze komba combat. 12 victoires. benn machine nul benn défaite. benn défaite deux défaites. deux défaites loolu de palmarès la. palmarès bu baax la. ñu ma war a bëree rek laa bëreel. mais Tapha Leer la moo yàq sa combat yow ak moom. non xaw ma ko nag parce que moom moo taxaw en tout cas jot naa. gis naa gis naa Tapha Tine xam naa eh, Tapha Leer boog du moins bëgg na sa combat yaa ak moom yow tamit bëgg nga combat bi te yaakaar naa loolu mën a yàqoo ci waa GFM. no du si waa CFM xam nga tafaa Leer promoteur yi sawaruñ ci bëreeg ba tëggal ko. lu tax xaw ma ba sa fi sa bàll fan non mu déggoo mën a la promoteur yi moom mbër bu muy bëreel en général mbër bi yow yaay tax pour nga pour moom mu bëre man lañ soxla woon suma combat suma adversaire jafe mu sës fi. mën hmm. na leen nañ ma ko jox. comprendre nga mais tey yow soo nee pare naa sa moroom ne pare naa joxuñu ko avance joxuñu la avance boo bàyyoon benn semaine moo ci des sax bu leen woowee pour jox leen avance war a bëri da war a jaayante ak sa ngor dem bëri ji parce que yaa ngi doon préparé wu mais ay naan avance dafa yéex a génn këram nangam sangam yàq combat bi ñu jël combat bi def si xaalis bu bëree baree baree bëri xaalis bu bëree baree bëri ñu may wax nii ñi ma dëkkal ak ñi ma suñu waa kër ci boppam suñu ma déggee dinañ xam lu may wax ko quoi maa ngi ko doon préparé préparé boo xamante ne bi musuma ko préparé combat ci sama àdduna. man gis naa stat yi. surtout financièrement grand parti dafa yëkkati 500000 jox ma ko. grand Pathé maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. suñu grand suñu lépp vraiment sonn na si combat bi. di ko nuyu di nuyu ay soxnaam ñaari soxnaam yëpp ak ay njabootam. per jàll aussi tamit saal lañ bokk nii rek. Mhm. mu boole ma ak ay kilifa yu waa yoo xam ne daw comprendre sax. billaahi di yëkkati xaalis chaque jour xaalis boo xam ne yow man damay dem ba damay rusa nangu. xam nga grand Mawa Ndiaye président ASC Arafat bi moom tamit. nekkul ñax ci ñëw gërëm moom liñ ci ñëw ñoo nañ sonn si combat bi de parce que combat bi seen xaalis laa ko doon préparé. waaw d'accord dañuy doog a commencé. Ah. moom defe naa ca fin ba lañ koy def. <laughs> waaw lañ koy def euh, yow bu ma ñëwee ci yow defe naa ne yaa ngi def ñaata combat 10. waaw waaw ñaata victoire. 9. 9 victoire benn défaite. waaw ku la daan. xuma xumbal moo ma daan. xumbal moo la daan. waaw yow bëriwoo xumbal. xumbal bëri nañ waaw ma daan ko. nga daan ko mu daan kii. waaw xam nga làmb moo demee noonu. Mhm. parce que boo xool mi ngi ma daan sama quatrième combat suma juumul Mm-hmm. waaw maa ngi jaare sa papa Moussa sa papa Moussa Lamette Bay di sëy di ko ñaan ak njabootam naan yal na ko yàlla yërëm dugg àjjana fi daw si parce que dafa ci sama carrière amul combat bu moom mës a bëre sa jàpp ci mm-hmm. ñaan sa papa Ndiaga Sarr ki tax mu nekk mbër nekk ci man moo ko def ci ko ñaan yàlla na suuf ci kawam ñaan yàlla na ko yàlla xelal jenn ji bëgg égal suñu côté ji bëgg waaye ko Ndiaga Sarr yëpp mais lan mooy problème bi lan moo tax combat yi di yéex non man sama combat yeexul de bokk ma ak mbër yi toog ay de man damaa maa a bëree 3 ans 4 ans naa la nga mbëri toog 3 ans 4 bëri bëri na trop non non sax ci cadre cadre gis naa ko moom ah, toog na 2 kon ci la bokk ci la bokk waaw. waaw yow da nga saf làmb. man su ma ñëwee làmb mu neex. Mhm. su ma feccee mu neex su ma bëree mu ne amateur yi bëgg nañu sama làmb moo raw kaan yi da saf sap. waaw ah, mu moom dëgg la. loolu yàllaa ko def moo tax amateur yi ñoo sawar ci man du ma man chaque man du ñaar bëgg sama combat. am na mbër mu xam ne waxoon nañ ci comment ma a bom parce dem ba ci biir muy doole amaat di ñamax ñamax gi man kay am na lu ma ci dégg gis naa promoteur sax bu ne ah, am na loo xam te su fi déggee daanaka combat bi day sotti looloo tax ma woo leen fi. ah waaw kon bisimilah maa ngi nii rek xam nga mbër mbër ay tàppet lañu. mais dama fi gis mbër yu bari yoo xamante nii koo woo mu ne gars yi dañ maa ragal. waaw dañ maa ragal lépp ay wax ju yàq la rek fi kenn ragalul kenn. mais Boy Seye warul mën a toog ñett at bëriw ak li mu def ci làmb lépp. waaw mais xam nga tey ku ne ak ñi nga war a bëri. Hmm. xam nga tey man su ma waree bëree Boy Seye exemple ma dem na Tapha Tine laa bëgg du ma bëri. Hmm. su ma waree fay million ma na 3 million du ma bëri. Mhm, ku ne xam nga la ngay jar ku ne xam nga nga war a bëreel nañ bàyyi moytante bi moroom yu bëri ñu bàyyi xale yi jël paa yi man sama sama carrière ma bëri ñëpp boo limee ñi ma ñu ma lim ñëpp sama combat pass bi ma jël ñaa bu ma nekk la tax jël ko ñàkk adversaire moo tax ma jël ko parce que kuñ na kii ma dem jël ko ndax benn benn balance mhm. parce que ku bëre ñoom booy Malika daan keneen ak dem dem jël ñaa xam nga. ñooñu de lamb da leen bàyyi xel. voilà maanaam daan ñooñu ñëw jël kee peut-être bañ a moo tax ma ma arrière jël ko. bañ a toog waaw toog 3 ans 4 ans boo ko bëri lamb da lay fàtte waaw. lan nga wax ci Boy Seye nan nga gisee performance si muy def ba noppi ba combat am di yéex. waaw mais xam nga man chiffre ko 100 pour cent. chiffre déedéet moom xam naa la nee na boo bëree seetaan na ko. d'accord ma ñaari combat laa xam. muy diggante ma kan. fils de Balla diggante ma Youssou Ndour ñaari laa xamee. parce que waa Guédiawaye la doon jëflanteel. waaw man ku bëre Guédiawaye mu def ak waa ah, man yow laa laaj ñëwaguma ci moom. nii ak defal ah, moom xam nañu ko ko. man maa man maa laaj. Youssou Ndour moo ko daan. waaw mu ñu la fils de Balla waaw. bëgg mu duggaat Guédiawaye. ah su ko mu kat lay dugg de ay ah, man moom soxla ma ma ku mbër mu def ay 3 la ma la may loxo <laughs> Boy see waaw Boy dafa mel dafa am leneen looy xalaate fi mu toll nii. non xam la moo xalaatuma dara dama ñëw fii juste ko pour leeral rek. waaw pour leeral euh, promoteurs yi. Mm-hmm. sama combat non mais man gis naa promoteur buy dox sa combat ba démb démb démb. waaw non ku koy dox promoteur buy dox suma combat. concerné wut plateau quoi concerné wut. waaw moom la moom la concerné ak suma ménager. ñu ngi siy discuter jot naa jot naa écho yi. ñu ngi siy discuter bu waree taxaw rek dina taxaw quoi man suma combat du taxawee si ay plateau. non si mën na fee mën na fee taxawee. non mënu fi taxawee. man man may man sama combat du taxawee noonu. promoteur dafa may soxla woo suma ménagère ñu laaj ma ba xam bëgg nga bu ma bëggee ma jël suma ma bëggul ñu dem seeti leneen comprendre nga man du ay plateau mooy du ma mbër boo xam ne damay toog du ma duñ ma proposer ay combat ba may dem si ay palaato pour am combat danga ma woo dama la woo pour ñëw juste ko pour leeral. noo leeral bi moom dina leer. voilà pour leeral ne suma komba ak Tapha yàqu na. Tapha Leer moom xam naa li nga ko guural. goxaluma ko dara. champion la xam naa ne xam naa ne combat bi ni mu taxawee woon dem ba ci biir yàqu metti na ndax. mënoo jël ay xaalis bu bari def ko ci doon yow dina la metti parce que tamit yow mënoo am combat def si xaalis ba pare bëreewoo te mu yàqowul ci yow kum doon dina la metti mhm. comprendre nga loolu amul ay kii mais passé na maa ngi si leneen maa ngi su may entraînement làmb mooy su ma métier am naa ñu may jàppale aw ma problème mu xaalis aw ma problème mu dara mu ngi baax comprendre yaa damay dem entraîné ji rek déglu promoteur yi ñu woo suma manager discuter buñ d'accord ñu ñëw bëre incha allah. mais buñ la joxoon avance Thiandoum doo ko jël. déggoo lu ma la wax ñëwuma si plateau pour wax si waxu ay làmb. waaw non d'accord ñoo mais làmb moo la fi andi. non non moom nga la moo fi indi. leeral leeral ne amatuma komba waaw léegi man dama bëgg sa combat taxaw. non man sama combat boo bëggee mu taxaw dangay ngay woo promoteur mu woo suma ménage. man man kay diggante naa ak promoteur moo man dama kon nañ ko waxtaane fële ci biti bañ ko waxtaane fii quoi fii du ma fi wax si làmb <laughs> wax si làmb indiwu ma fi wallaahi. yow bëggoo càndum càndum càndum tamit nee na bëggul bëggul. man xaw ma déggoo li ma la xaw ma sax ay waxu ay déggoo ma la du ma wax si làmb. du wax si làmb la wax si làmb ay bëgg naa diw bëgguma diw indiwuma ma fi dama ñëw pour leeral te su ma leeralee deux jours bu ñu ko si tegee di nga di nga ma woowaat ne ma sa combat taxaw na comprendre nga. Mhm. dama ñëw pour leeral quoi ne man amatuma combat. combat bi yàqu na si Tapha Leer moom moo ne bëreetul li tax mu ne bëreetul duñ ci sori quoi. waaw mais léegi comme que da nga ñëw pour leer nag damaa bëgg loolu leer lan moo tax sa comme Tapha Leer dama ci biir ne bëggatul ba ak yow. loolu mënu ma ko xam parce que moom dafa am staff am léppam moom moo dem ba ci biir ne bëreetul peut-être yow soo ko jëloon. dina la wax li tax mu ne bëreetul quoi. parce que nit boo ko ragalee doo jël avance am. non wax na ma ne ma carrément wax nañ ma combat bi te joxuñu ma avance te ma tam mënu ma jël nekk ci combat boo xam te day dem ba def deux semaines kenn joxagul avance ma dem di bëri noonu noonu. du ñun bi ñuy woo pour jox ñu suñu avance combat bi vingt cinq jours moo si des. yow nangu nga pour jël avance boobu. trois jours pare woon naa bu ñu bàyyi woon ba ne suba la ñu jox ma avance sax pare naa pour bëre parce que def naa si xaalis ba pare deux jours. bu la joxoon nga dem sëgg bëre. ma dem bëre ji parce que pare mais man mais man gis naa ci ay écho am na ñoo xamante ne ñoo ba tey waa waa GFM ñoo ngi doon dox sa combat pour nga bëriwaat spécial bi. waaw moo tax ñooñu la doon démarché taxaw. ah ñoom ñoom peut-être bëgguñu bëre wala soit xam nga nee nañ date bi li si des dafa jege mënuñu si. préparé yow ba tey bi ñu la proposé ñoom ba tey pare woon nga pour bëre spécial bi. ban nii may waxee yow nii ba suba. man entraînement su ma mooy suma métier man xëyuma gontuma man toog muy dox laa man damay tëdd di am xaalis entraînement rek lañ ma sant santuñu ma leneen comprendre nga kon man ay combat une semaine ñaata yoon laa ko bëre man tegale naa saison 4 combats ay combat une semaine deux mois mu bëri si 4 combats kon xam nga kooku moom mooy loolu. man su ma ah, man su ma joxee combat ma naan parewu ma sax sama waa koñ ma fi yaay dañ may bàyyi parce que ñoom dañuy dem dawali seen sareet yi ñëw jaar kër ga di fa bàyyi ay 2000 ay 3000 ay booyu nda de di ko fa bàyyi pour lan ana sëy dem na entraînement kon man su ma nee parewuma booy dañ may rey. gannaaw gannaaw gannaaw nee na da ngaa xeeb booy sëy fi mu toll nii ñan ñoo say adversaire. non xeebuma ko. xeeboo ko dama la bëriwuma ak moom. lu tax bëriwoo ak moom. moom a njëkk ci làmb. Mm-hmm. ndaanaa la nangul naa ko champion. te mm-hmm. day bëri combat yu métti nag. waaw d' accord na d' accord na. Mm-hmm. boo déggee may loolu dama jittu làmb jaar ci yoonu puus puus boo demul man ma jaar APS. daaw puus puus puus dem waaw jaaroon na sonal ma jaar après si wër ko ndomba te am naa duraan na bëri ma am naa mën naa ba lu ko gën man sama combat mën a njaayitin si tey tey ci la des man bëri njaayitin mel na njaayitin dafa toog plateau TFM hmm. sama mal caan sama turandoo ñuy wax mu ne par na pour bëreek man promoteur seeti ko woo ko waxam pour bëreek man hmm. mu ne waaw dem ba ci bilan sama staff ak nangam nangam loolu yàgg na bi mu bëree ba noppi wala avant muy bëree bi wax naa ñoom si ñoom la des Ndiaye Tine dafa mel ni man xam naa promoteur bi de. déllu ragal ñoom ñoom. Alain la ñoom Alain la. moom dina nangoon tey tey mu bëri laajtuma ko nag soxluma ko moo toog plateau TFM wax ci man promoteur démarré ko kon tey bu dee li mu wax dëgg la am na fit. Ndiaye Tine loxo yi ñaw na de gis nga bëgg dem ni fi def bàyyi ma ñëw. xanaa ngaa fàtte kuy càndu. maa ngi toog ak yow kay mënuma laa fàtte. déedéet xam nga ki nga toog ak. <laughs> waaw la càndum la ci biir géej la xanaa càndum bi ci biir géew bi ngarmee koy dekku de sa njaay tamit ci boppam moom xam ne moom laay waxal combat bu ko jëlee daj lu musul ci làmb est-ce tey daa ñëw fii ci plateau bi waaye moo tax <laughs> jot fee teew làmb du gudd rëy làmb yëfi garmi la ci biir géew lañ koy defee tagguma sama bopp gëñuma sama bopp nag waaye comme moo toogoon ci télé wax ma premier seet si ko na jël danga bëgg daal lu waaye waxoon na ci dellu waaw ba bu laa nga daree ba arbitre ar bi la mais lan nga ñemee Ndiaye Tine non ñeme ma koy ñemee ragal de man làmb su ma nee benn mbir. wala boog li ko sa tóndoo wax jëlal jëlal sama booy bi moo tax nga nga nga nga am. fitu loolu non non tey moom moo toog wax ci man. Mhm. amateur yi dégg ko promoteur yi bëgg ko bëgg ko ko man lu ñu bëgg bëgg naa ko man mbër amateur la lu ñu bëgg bëgg naa ko kon tey bu demee ba wax bañ bañ bañ woote na confirmer rek ñu bëree ko. ma de dégg naa message promoteur bi nee na euh, Ndiaye Tine jaww ñu koy kiiwee keneen bu nangoo léegi ma jox ko avance man kay loolu dégg naa message boobu. waaw man bañ bañ ma waxee dañ ma leen Ndiaye Tine moo wax ñu ne ma waaw man leen acc dañ dañ dagg vidéo bi sans avant. mais bu dul bu dul bu dul bu dul Ndiaye bu dul Ndiaye Tine ñan sa adversaire ci làmb. bu dul Ndiaye Tine waaw amiral bu Thiès baax na armée baax Thiandoum mi xanaa dafa mer. wala Thiatou Yoff man laa ma soxla ma ci lu yomb. non Thiatou Yoff moom du bëgg ak yow Thiatou Yoff du waaye jàpp Youssou Ndour doo ko mu daanu sama copain nag a baax. ma ne. Thiatou Yoff du bëgg ak yow. question li mu daan Youssou Ndour a tax de man jëluma la am ci sama lamb daan bëri géej waaye taxul ma jël la war a moo tax ma jël sa comme nee na moom ni nañ ragal moo tax mu yéex a bëri na ñëw. Thiatou Yoff waaw. moo lay seetaan. waaw amul problème moom su paree pare naa man comme Alain mi ngi soxla combat bi. Hmm. mi ngi mi ngi taxaw pour jox ma combat man ak man. comme Ndiaye tamit mi ngi loxol gi tàppel tàppel wax nga moom tàppel la mun nañu ma. non Ndiaye tamit moom yooyu mais man mii man mii faralu moo ko te supporté ma waaye xam naa ne Ndiaye tamit amul lu muy tiit ci mbër moom. ah waaw mais tey da wax ci mbër ba ñu war a jox avancé nga nga nga nga làq di daal. est-ce que nekkul li ko fay moo ko. non wax kase egguñ ci de waaw wala déet ñu doog a waxaale kase. waaw foog ngeen toll man man ma fayoon fukki dërëm wala gratuit que moo toj tepp moo wax ak man sama ku ma la ragaluma loolu de. <laughs> ma ñëw ci booy Seye Boy Seye dama gis sa combat bi ñuy dox. booy bi nekk ci ay série de victoire jàpp booy di tër defe naa ne xaw na ñëw sax ba sa côté foofu am booy bu mu fa jàpp taxañ ko teg. kàlla. waaw oh, yaa gën a xam nga ne ma kan la. xaw ma ko de. yow woo ñu la Cheikh Super jamono. daa am promoteur bu ko bëgg. <laughs> non bu tax déedéet déedéet man. man yow li may wax yaa ma ko gën a xam fuuf. non gënuma la ko xam wallaahi kon excès gul ci man de. déedéet bul dugg ci loolu. non excès waxaguñ ma dara. promoteur woowagu ma de sama manager tamit woowagu ma en tout cas daal nee na ma am na promoteur bu bëgg sa combat. Assane Ndiaye moo bëgg sa combat ak Cheikh Super Jamono man kay man rek am naa ay ay écho ah, comme man déggaguma ko bëgguma ci sori quoi comme yow. ci yow laa dégg pare nga pare nga pujool Cheikh Super ko. non dégg nga ko si yow nag yow nag booy booy sëy booy sëy ñun ci làmb nekk. waaw ah. ci làmb nekk sa digganteeg Cheikh Super Jamono promoteur Assane woo na la wax ak yow woo na booy sëy woo na Cheikh Super Jamono wax ak moom. léegi lu ko fi moo ci def lu ko Super Jamono wax déet man bul ma laaj lu ko yow yow laa laaj yow man bëgguma ci sori quoi. kii euh, nu mu tudd sax Ousseyn Ousseyn déglu ma ma expliqué la ma wax benn affaire. Mhm. man tey dama lay wax benn affaire man dama ko waxoon si si plateau benn benn benn sud. Mhm. yàgg na ma ne ko man benn mbër ñemewu ma. parce que man bi nga may wax da nga ne ma na nekk mbër rek man bu buy takka ngemb ma bëree ak moom. loolu non toll foofu si làmb nag ba ku ñëw rek ma bëree ak yow. waaw man maa ko waxee noonu mais am nga ay adversaire ne la. man du ma bëgg sax ñu may wax mbër may toog di wax si moom parce que dama xam ne saa yu ma waxee si moom rek mu delloo avance bi. seex moom seex moom ragalul moom maa la koy wax fii tey nekk fi nag waaye maa la koy wax seex moom ragalul la benn yoon. waxuma ko sax moom. waaw non la champion la mbër la def ay performance yu baax. ku daan moom jóge si ñaari victoire. yu am solo. am la a nekk xale di mobiliser dëkk bu dëkk ñëpp yaakaar ko bëgg ko. mu nekk ndaanaan quoi. Mm-hmm. te ndaanaan moom. waxal nit baaxam wàññiwul sa baax dara quoi champion la mu ngi si yoonam comprendre nga. Mm-hmm. maa ngi koy ñaanal jàmm di ko ñaanal tawféex. mais dama ne la boo bëggee bu boo gisee bëgguma sori ci wax ci ci sa diggante ak mbër comme ñëw dox suma combat ak mbër ma wax ci saa yu ma ci waxee rek mu delloo avance bi. non Cheikh man xam naa ci Cheikh seex du delloo avance. ndax ni ma déggee mu tontu promoteur bi moom defe naa ne ci yow lay des waaye du des ci moom. Hmm. Ah, hmm, kay amu <laughs> ci na ko dal man bañu ma ko de parce que mbër la. mbër la mënu ma ko bañ si làmb rawu ma ko mayu ma ko sens. Mhm. dafa daw dafa bëre ba war a bëree ak man. Mhm. comprendre nga. nekk ndaanaan te nag neexal day day neexal bés. di jënd ay billets. waaw jënd ay billets nag day mobiliser ndaanaan la. te yow da ngaa saw nekk si écurie bu mag. Mhm. voilà kon xam nga yow làmb yooyu noonu bu la yàlla dimbale woon tey mën la sumu mu taxaw dañuy tëj arène nationale. parce que nuyu bu baax a baax xam naa ne moo ngi fee ca Gambie waaye fu nekkoon. su ma ko woon téléphone na ko kaay boo sëyee fii ci yow lay wax day daw ñëw daw ndax moom lépp luy doxal làmb ak Cheikh da ci non man gis naa ko borom fit la parce que mbasik yi muy bëreel da ngay seetlu ne ñoo ko raw si làmb ñoo ko jiitu si làmb mais day ñëw affronter la du reculer comprendre nga te yow loolu ngay bëgg non man loolu laay wër man lan laay wër lu dul loolu man kay man lu xotteeku rek laay wër man bu ma leree ne suñ combat bu taxee day nooy du ma la jël sax comme kii maa ko man dama koy daan du ma la jël la jël loolu boo ko laajee Matar Ndiaye suma manager ñaata combat wax nañ ma ko ren mën leen bëréewu ma ñoom. mais nag bu ñu xool sa carrière dafa mel dafa xaw a yéex. dafa yéex. dafa yéex kay dafa yéex xam nga la moo tax mu yéex. yow man lu may am si ay combat mu dem ba taxaw mbër mi delloo avance da ngaa xam ne mu toll da yaakaar na si bii kese la yow su ma la tegaloon audio ay audio fii nii nga déglu ko nga bàyyi. ma yow gisuma ci yow lu mbëri di war a mën a ragal ci yow. wala lu non man sama combat yombul. boo ko bu taxawee doo nelaw ndax lan waaw parce que dañuy làmb lu mu laaj dañ koy def. dañ lay fekk ba sa biir kër laa la wax de nga war a añ ñu ñu jël bool bi teg ko na la ne doo añ lépp am na si man sama combat lépp a ngi si Ouzin yow yaa xamul naka waar mais gars yi ñoom xam nañ man ñeme ma moo yombul ci làmb comprendre ga loolu am na ci làmb yow Thiandou. ah man de ku ma ko def doo jënd kër ga de. waaw ku la ko def. ku ma ko def doo jënd kër ga. teg boolaan nga ñëw nga ñëw teggi boolaan bi. noonu doo doo ko defati. dëgg yàlla. Ousseyn Boy Sey làmb euh, làmb dafa dafa garaaw quoi xamoo làmb làmb ne di nga jël at di nga di nga laaj nit wala say mbokk dugal la si nit wala sa say sa làmmiñ dugal la si nit wala genre yooyu noonu. ba pare yow nga tëdd sa néeg sax doo tranquille li naan dañ lay jëndloo faso yaa biir te du la jàppale ci gubb. Eh, te wallu teen la. ku ñëw ci balaa bu taxawagul. <laughs> lu la neex waaw làmb ji day neex bu taxawee ba pare signature yi làmb ji day neex mais bis bu ñu demee bañ ne la combat bi bu jeexee yaay dugg si géew gi foofu noonu boo amoon lecture dëgg-dëgg xam tàppet tàppet nga xam tàppet buy dox tànk yi ni muy trembler ni muy def. di nga ñëw ba ci làmb nga gis mbër nga xam mu leer na ni kii fi mu toll nii da nga koy da nga koy duma nga xam ne dara desut ci moom. waaw da nga koy duma da nga koy daan parce que instant bi am na ñaan am na entrement mbooloo mi dar nañ ko ko ñoom jàppale nañ ko mais moom ñëwul. moom ñëwul ci làmb. sa combat ban combat moo la ci gën a neex yi nga jot a bëree. man benn làmb neexaguma benn làmb naxareeguma man xale laa si yoon laa nekk man amaguma combat. bu amagoo combat bu la neex. amaguma bu ma naxari tamit. yow ban combat moo la gën a neex ci nga jot a man ak bi ma daanu. nga mu neex la. waaw parce que moo def mbër. dama bëree mbapat di bëree mbapat di bëree sama dernier combat mbapat ci laa daanu am combat arène. sa sa dernier mbapat nga daanu. combat mbapat na dama bëree ba dernier combat mbapat ci laa daanu. am combat arène di daan am troisième quatrième combat comme cinquième mu ñëw mu daan ma bi ma daanee boobu jamono dama jàpp ne ku taxaw ci man wala nga takk ngeen ma la man mu daan ma bu ma ko fàtte mukk 25 décembre. kan la woon xumbal. Mbapat la la daane woon. arène arène la la daane waaw 25 décembre Iba Mar ma dugg sama kër toog 3 yéenu ma sama kër su ma bi ma jël laay doog a doon bër moo tax combat bi ma dàq samay combat. man moo la ci gën a neex. bu ma ma gën a neex ci combat yi dégg nga li ma la wax damaa daanoo pare. est que ah. tax lu ma am ci làmb lu ma am ci làmb. ci combat boobu combat bu laa ko amee. moo tax ma ma dàqal samay combat. ban moo la ci gën a naqari. benn naqariwuma ci. amagoo bu la naqari. amaguma ci parce que ah yi des yëpp ñëwee jàpp daan c'est du sama jàmbaar dimbal suñu borom la. du doole parce que man ñi ma bëreel ñëpp ku ma ki taxawal da nga may xeeb da nga naan taalibe bee parce que sama kanam xam nga moom sama kanam dafa xawal dafa kanamu taalibe laa yore. waaw waaye nag bu ñu duggee ci biir géej bi ba <laughs> ba jukkee gaynde gi jén ah foofu leneen lay doon de beneen cànn may taxaw foofu. ana ana ana waa kii nu mu tuddee sax. Ndiaga Sarr Ndiaga Sarr hmm. ay ñoom Ndiaga Doole ak booy naka ngeen di waajee bu ngeen amee combat. comme ni ko ñëpp di waajee rek bi may waxee yow nii tey ci géej laa entraînement laa jógee ñun démb rek dañoo contact ñoo ñu am combat parce que am na ñaari booy am combat pour l'instant nii boo noter mi wax léegi am na combat sax. Ah, waaw boo am na combat ñun li gëm. yow da nga xëy yor gàdd gàdd sa caméra gàdd sa micro dem liggéey ñu dañuy xëy ñu dañuy xëy takk suñu daal dem futu ñu ba ngoon takk seen ngeen contact parce que mbër boo bëree doo doo mbër. kon mbër bëree joueur football waaye nag di joueur de suñu tous les tout les sénégalais. Mhm. ndax parce que macha allah suñu bàyyi nekk nañ ci ba jugee ay bàyyi keneen ak keneen mosuñu gis coupe ñun yàlla si waat génération ñu fekk coupe. kon ñu ci am kontaan bi te ñaanal Lions Lions yi gaynde ji la ñaanal yàlla na leen jik bokku demoon teg leen tegu ci. amiin parce am na ci mbégte bu baax a baax baax. dëgg yàlla ñaanal leen tegu ci. lan ngay wax ñi nga xamante ni ñoo lay seetaan ak fans yi parce que defe naa ne combat boobu bu fekkee bii taxawul boobu dina taxaw lan ngay wax ñi nga xamante ni ñoo nekk sa ginnaaw di la jàppale. maa ngi maa ngi maa ngi ñaanal suñu waa écurie quoi sam booy yi nga xam ne ñoo am kombaa ku si mel ni Papa Sita Yalmbin borom 11B. yaa ngi dégg. man wax ci man yombul de. maa ngi maa maa ngi ñaanal. wax ci man yombul de. nag. lewet naa tuuti naa gàtt naa waaye wax ci man yombul de. garme bëgg mbër mu am saay caay nag caay caayu làmb. maa ngi ñaanal Papa yàlla may ko ndam sama fis sama xarit suma lépp. Baye Fall bi boo yaa ngi waajal bu baax waa 11B instant bi kenn nelawatul parce que ñetti combat lañ fa lañ fa lañ fay préparé te boo yooyu yëpp ñoo bokk mafia xam nga di di di di jaay ay quatre blocs ci ay boo yu ndaw. ak yoole yoole xam nga maama lamin maa leen di ñaanal ñoom ñëpp ku si nekk yàlla may la ndam bu koy sa njor di ko ñaanal ngis kara mon ami mon frère di ko ñaanal Hamza. xam nga suma xarit suma lépp ñu bokk koñ moom tamit mu nekk gaynde yaakaaru kaas ba di wax waa kaas ba yëpp nañ waajal combat bi xam nga ñu ngi daj lu metti te am nañ yaqin bu wér a wér suñu borom dina leen may ndam su juumul écrit ba ñooñu laa fa xam si ñu am combat ak ak Baye ak ak Baye Zal Siteu borom 12B xam nga moom moo jël relève bi ci Boy Seye 1 que 12B moom moo fa nekk moom tamit maa ngi koy ñaanal suñu borom may ko ndam bu baax a baax. yaa ngi dégg. di gërëm waa wasaare làmb yëpp. mais waxal ñi waa ñi ñi lay jàppale parce que combat bi dina taxaw de. non man xaalisu biir ba léegi mu ngi foofu tegee Moussa Camara da doon xëccoo maire bi. Mhm. moo de moo jël deuxième. bi combat bi desee bi bi yi desee 15 jours la woo Toumani mu ñëw mu yëkkati un million ne ko am parce que Boy Seye mu ngi ma doon jàppale si élection yi. Mhm. te dafa war a bëri la 20. te après élection yi day xat jox ko Toumani. xaalis bi mu ngi si tumaa dama ne ko téye ko foofu Ouzin man xaalis man man bu ma mën naa am combat sax bu la neexee bu ma jox avance garaaw damay pare parce que ñi nekk suma ginnaaw entourage bi ku si nekk da ngay génn li nga am pour Boy Seye amuñu problème boobu comprendre nga. Mhm. combat bu taxawaatoon tamit dañ koy jël dugalaat ko foofu rek amul problème. kon fi mu toll nii daal jekk nga pour promoteur yi nga xamante ni bëgg nañ combat Boy Seye. non pare naa. ak combat bu baax nag combat bu metti combat choc combat boo xam ne waa Kër Masaar day yëngu man. bëggoo combat su ma waree génn Kër Masaar dañuy tëj porte yëpp kenn du xëy kenn du xëy c'est dañ naan la borom dëkk bi moom mooy génn. Ndonde yaay tëdd fi moom. Kër Masaar dañoo yàqamti bés booy sëy maa ngi am ay combat muy yàqu si ay adversaire ak si ay promoteur comprendre nga moo tax chaque jour maa ngi entraînement que musuma toog 3 mois bu ma amul combat. mais combat yi mooy yàqu si adversaire yi léegi nag bu ñu may jox nañ ma jox koo xam ne man leer ma ne man. du daw du daw ko waa man. parce que bu ma préparé waatee combat ba mu des ay fan adversaire bi daw no ma dagg bee dem. Modou laar arminion bi dem su ma yoon. non lu leer parce que nekkuma fi di ut doole jëmale déwén. comprendre nga. Mm-hmm. booy yi nga xam ne ñoo doon fanaan sama buntu gaale ñoom ñoom son ñoom Pulo ko ay xam nga gars yëpp maa leen di béggee mënuma lim ñëpp quoi parce que bu combat bi des taxawee ba léegi buntu gaale lañ doon fanaan di yéeg si kaw terrasse bi di fanaan foofu noonu xam nga di di sonn te jaru ko woon sax. Hmm. mais ñoom ñoo ne carrément combat bi ñun dañ ko bëgg quoi. di gërëm sam booy nekk Tamba yëpp ku si mel ni Modou Sylla xam nga Gala Sey Ousmane Jong xam nga ak Serigne Serigne Jong booy yooyu noonu xam nga xam ne sonal naa leen trop Saliou Jong sama rakk. maa ngi koy bëggee suma mag mbës suma doomu ndey saa bokkal xam nga maa ngi koy bëggee moom tamit bu baax a baax gaynde gi di nuyu bu baax waa kër temps aji di di di di ñaanal temps aji fu mu tëdd gënal ko fu mu jugee di nuyu jaara faal xam nga di nuyu bu ndaw xadisa lëz xam nga seexu naa seex manu sàmba sama xarit yi nga xamante ne bi ñoo nekk foofu ñoom Ibou Medoune gaa yëpp maa leen di nuyu suma suma xarit alaaji soose xam nga waa waa waa mafia firi delloo bi yëpp maa leen di nuyu di nuyuwaat suma papa King di nuyuwaat suma kër su baara di nuyu président 100 pour Kër masaar bi muy Diaz prési maa ngi koy bégg bu baax ak Modou Boy Pape Demba Cheikh bas Bira xam nga Baye Ndiaga maa ngi nuyu ñëpp abu Sey vraiment ñoom tamit ku si nekk da yor sa écrit mais da nga da nga yemale mbëru Kër Massar yëpp te loolu mooy gem ñun Kër Massar lañ dëkk mm-hmm. drapeau Kër Massar la ñuy yor. di nuyu grand sama sama xarit bu baax moom tamit sonn na si combat bi nekk itali Papa Ndoye borom Italie xam nga di ko nuyu bu baax di nuyu njabootam ñoom wëli xam nga ñoom Oumy Ndoye xam nga di nuyu jabaram mami di ko nuyu bu baax borom yoof Lebu Ndoye maa ngi koy nuyu bu baax suma xarit Zeking borom Italie moom tamit maa ngi koy nuyu bu baax a baax Seeri Mata di leen di leen di leen leen gërëm bu baax di leen wax daal képp ku si jàppoon rek xam nga continuer jàppaat yi te xam ne drapeau Kër Massar bi suñu loxo. te am te dinañ ko yóbbu fi fi ñu bëgg ñu yóbbu ko fa parce que ñu ngi si lu ñu sant muy entraînement yi nekk si lu ñu war a nekk comprendre nga. Mm-hmm. di wax jërëjëfe maam jaara bu sa tey la màggal poroxaan mm-hmm. di wax ñi dem ñëpp lépp lu luñ fa ñaan yàlla na ko suñu borom nangu yàlla na leen suñ borom indiwaat ñu ñëwaat ci jàmm ak salaam. Mm-hmm. di ñaanal euh, gaynde yi nga xam ne ñoom ñoo jël coupe bi tey du ma leen du ma félicité du ma leen félicité mais sénégalais yi laay félicité parce que. ni ñu génnee. ni ñu ni ñu ni ñu affaire bi dangay xam ne carrément ñoom ñoo ko gën a bëgg sax gars ay mag ay maire ngay gis xam nga statut yi da ngay rey ba sonn quoi da ngay gis ay affaire yu garaaw non xale yu ndaw yi ren nii rek la mënoon deme parce que boo xoolee préparation bi ni ko gars doon tundee rek hmm. ci ngay xam ne ren ñoom dañu ñëw pour jëli coupe bi amul leneen amul xalaat sax amul xalaat xalaat ñàkk la. xalaat <laughs> nuyu mbër mi nag càndum. <laughs> léegi nga ko doog ah, moom la moom xam nga. léegi <laughs> la nag sama doomu ndey la la daan muy Boy Niang mbër la quoi. xam nga léegi nga koy doog a mën a nuyu laa. non dama koy nuyu parce que ñoo bokk nday bokk bàyyi quoi. te ndaanaan la tamit. lu mu wax tamit de waxul dara pour dépasser ma. Mm. mais dafa wa mais nante la ko waa du ngaaga. parce que mbër mbër bu mën a monter combat la. boo déggee ni muy waxee rek da ngay xam ne moom day bu dajeeg ngaaka ci plateau rek dina taxawal combat mais yow lan dégg nga. <laughs> mais man man du ma ngaaka quoi. <laughs> di ko ñaanal tawféex. turandoom muy Malick Thiandoum nga xamante ne bi ku ko bëgg la dañuy déglu buy wax si moom. xamul ma la mu nekk ndaanaan ku def ku def diis combats benn defet champion nga. mbër nga quoi maa ngi koy ñaanal carrière am lu mu si bëgg yàlla defal ko ko. parce que parce que naa la xamal leen Ouzin gis nga ñun mbër yi takk seer kenn yéene wu ci sa morom lu bon. sa làmb dafa metti boo dëkkoon ak mbër une semaine. lu mbër am nga yéene ko ko. man man man moo tax la waykat ba naan mbër luñ ko fay jar na boo dëkkoon ak mbër une semaine une semaine nga xam ne mbër luñ ko fay jar na ko comprendre nga fi may tëjee rek mooy damay gërëm suma yaay Mintu Gueye bu baax suma papa Tafa Diallo mère Sarr di nuyu Binet borom Aliou Couture sama xarit suma lépp xam naa ne bis bu ñuy dóoraat man ay émission man maa lay indil yére bi ngay sol tey na ñaan yàlla combat bi taxaw sax ñu defaat fi beneen face to face boo xam ne man maa lay solal solal adversaire bi solal sama bopp. kon bu yeboo nga wax ko mu ñëw. incha allah rabi non bi nag loolu tënket. ah moom laa la wax foofu sama atelier la. ah kon baax na. Eh, lu ma fa namm damay bës bouton. wasalaam. Thierno boo mën kàddu yu mujj gannaaw sa waaye fi mu toll nuyu la ba eh, émission bi di waaye jeex mu lay doo a tàllal loxo di la nuyu di la baab di la waxal say baax baax lan lan lan nga ciy dolli. waa mais yaram moo tàngoon rek. Mhm. xam nga tey nit di nga ñëw di nga jógee sa kër yooyu di programme nga war a wax. micro bi. nit da nga jógee sa kër ñëw programme li nga war a wax. Mm-hmm. tey soo ci dugalee lenn lu ci bokkul rek amaan li nga bëggoon doo ko wax. Mm-hmm. peut-être loolu la quoi. bi muy ñëw dafa àndul dafa àndaale li. ah waaw mais c'est normal parce que képp kuy dem ci télé. wax ball bu xasee ba dem dem na. Mm-hmm. parce que dama gis ñu yenn mbër yoo xam ne nii ñun ay mbër lañ. buñ toogee ñu wax mbër safaan dañuy métti. sa am na yenn mbër yoo xam ne dañuy toog ci plateau du wax wax joo xam ne nii dafa doy dañoo war a doon père de famille. nekk kilifa te lu wax ju day ñëwaat kon bu ñu toogee ci plateau lépp lu yox nañ koy xalaat. xalaat man boog moo def émission balaa maa ñëw dinaa toog xalaat sama xel li ma war a wax dinaa woo ay mag laaj leen ñu wax ma conseil ma li ma war a wax. parce que li tax nit di nga wax nit da nga toog plateau di wax am combat di wax. Mhm. ba ñaan la nga daan. da nga toog ci plateau di wax ba ñaan la nga daanu. Mhm. kon wax dañ ko war a wóor dañ ko war a normal que bu dee benn nit sax am na ko la bëgg. Mhm. sa kon kooku mu ngi roy ci lépp ci lépp ci waxin ci solin ci léppam kon tey ngalal li booy wax dee ko soraale. ñun ne ay ndongo daara lañ ci daara lañ meññee ko ay ndongo daara lañ. Mhm. moo tax man boo xoolee fi ma bokk di yëngu ci làmb waaye yàlla moo ma natt ci làmm ñu nangu ma loolu bàyyi ma ci. kon tey fu ma dem war naa leen toogaale war naa leen bàyyi xel d'accord li wax xam nga làmb la bu ñu toogee mën nañu wax waxu mbër waxu mbër nag nekkul waxu dof. Mhm. parce que bu ñu ne mbër ñu ne dof non kër yu rafet yu mbër jabar yu yu mbër oto rafet yu mbër kon du ay dof. Mhm. ay nit lañ peut-être làmb géew bi moo laaj loolu. mécanicien bi sol tëneem dugg ci biir oto tinim ñuul ko pourtant du dof. déedéet parce que teraanga àdduna moo tax mu def loolu ñun mbëri bu ñu ngemboo loolu la kon nañuy comprendre te yéen mbëri yoo wax kii nag tamit nañ bàyyi xel waa ji bëggaat waa géejawaay yëpp di ñaan waa géejawaay waa axlu làmb jàmm di nuyu suma turandoo baax a baax di ko ñaanal jàmm di ko sàkk ci moom parce que sonn na ci man trop ak sama ménagère. Mhm. di nuyu borom daaru sa xarit. waaw borom daaru parce que man ak moom ba ànd di mbappat ba léegi ñoo ngi ànd. Mhm. boobu mu ngi jàngi métier may jàngi métier kon loolu yàgg na. dëgg la te yàlla suwaan boobu yàlla na yàlla lafal cet képp ku may ñaanal rek maa ngi ñaanal sama waa koñ waa Angal Mousse di ñaanal waa commune bi yëpp jëstalaat njaal sa papa bay di na ko yàlla yërëm papa Ndiaga Sarr bu baax di bëgg waa Yomal Xiyam waa Ayti waa Toboy waa Kalso waa Mata bu bees waa Baxdaat waa Ceer ba waa Jamono képp ku bëgg caanu maa lay bëggee. waa Daaru Muxti gi mu dëkk nag maa leen bëggee di leen ziar baax fa fa laa fa laa jógee vendredi passé wax dëgg yàlla am fa am ay mbokk am ay xarit am ab di jàmm ba borom daaru rek Daaru Muxti la dëkk te doon tudd bi passé tuddee daam di borom daaru mm-hmm. wax dëgg ko ñaanal doom ji yàlla na dem ni ko nit ñi waxee dem ba am ndey ak bàyyi li ci bëgg moo xam yàlla na ko yàlla defal ñu bëggee waa Daaru man baax sama waa kër yaay bu baax a baax a baax bëggee waa Kaolack sama waa dëkk maa leen ziar tund Saalum bu yëpp maa leen di bëggee képp kuy doomu Saalum Saalum rek dana Thiandoum mi yéen a koy jàppale maa ngi talal loxo parce que làmb dafa métti. te yàlla su suturaal nañu wax dëgg yàlla bu ñu amee combat nit ñu bëri jël si alal ñu ko def ndax heure bu ñu indi mbooloo du soog ginnaaw di ma jàppale ñoom la ginnaaw yàlla ñooñu la say boo amee ñu lay jàppale dama jàpp ne li booy say wax léegi dala war a yokk jom mbër nga toog ñu jox la combat nga naan paréwuma dañ laa war a tër paaka rendi la parce que làmb nekk sa métier waaw làmb nekk sa métier man jël naa combat deux jours ñaari fan. waaw man ak Boy Malika jeudi ci ngoon ma jug maa ñi woo ma na Boy Malika mu bëri combat bi daa yàqu te xam nga lañ may woowee groupe WhatsApp bi l'homme de l'homme di situation. l'homme de situation. waaw ndax combat bu yàqu maa koy maa koy defar ci guddi laa ko jël xëy vendredi entraînement samedi ma dem bëree jóg yàlla may ma dam sama jàmbaar dafa fekkoon ma nekk ci yoon wa. kon de kon de kon de Boy Malika ma na la Boy Malika waaw mais xam nga moom mi def signature fekk sama collègue defee signature bi si salle musculation ba mu ñëw indi asiko yëngal macha allah nekk ci forme nekk ci lépp gars yi nag kii ki am na problème xanaa kooku loolu la dégg moo tax jël moo tax mu ñëwut comme man la maa ngi de ñëw rek ma ma dégg la ah gisoo rek la gis dara waaye jeex na ndax dañoo nekkoon ci laa mu nekk ndaw lu ñëw rek ñu jël parce que boo nekkee ndaw da nga lu ñëw da war a jël mm-hmm. ba tollu benn niveau nag doo ko am plan de yàlla def na promoteur yi bëgg na ñëpp bëgg nañu encore Ndiaye Tine yow laa tëjee sama tournée yow laa tëjee sama émission yaa waxoon ci man promoteur woon na la bu dee garmi nga bu dee li nga wax dëgg la ci yow nga jël avance bu dee dëgg ci yow na nga xajal ma ma jàll ndax su ma la rombee du ma la gestuwaat du bëggee bàyyi laa sama doomu day baax a baax. su ma la rombee du la gestuwaat gis ngeen ni lay demee ci jàmmaaloo tey nag jàmmaarloo bi. <laughs> <laughs> ay bëggee yow tamit bu gërëmaale kii bi nii ah Wassare mhm. Mhm. parce que ñu ngi gis équipe bi quoi yaa ngi si terrain bi si axlul làmb di si bay seen waar mhm. vraiment te lépp di rafet te ñi si nekk ñëpp bu ñu defee làmb rek nga ne gongo quoi macha allah ñu ngi bi fi nekk micro bi équipe bi ngi fi teew ñi nga xam ne ñoo fi nekk fii nii xam nga boo gisee lii rek wasaare boo ko dee dégg sax mais boo ñëwee seen seen seen bureau bi fii nii rek da ngay xam ne ñii nii ay professionnels ñoo fi nekk. Hmm. ñii dañoo pare. macha allah di leen ñaanal suñu borom muy gën leen yokk ba si kaw a kaw salaire yi yokk ngeen am ci lu kawe seen jort. Hmm. waaw di nuyu sama jigéen nag xam nga neex a dëkkalan ah. <laughs> di nuyu jàmbaar jii nii. abu abu waaw abu moom moom sama waaye dañuy déggante lu bari. Hmm. Eh, di bàyyi jiili tamit noonu. yow moom xam nga mention spéciale. ñu wax ba jóge fi te ñu leen. wax ci ci wasaare tamit. fay mm-hmm. rek ñu wax si quoi. salaam. waaw dëgg la Ouzin nañ tëjee nañ tëjee ci émission muy wasaare. Mm-hmm. parce que lan mooy wasaare moom lan mooy wasaare lan la signifie. wasaare mm-hmm. mu law tas. kon jeex na kon ku fi ñëw sa lépp law. te li lépp law yàlla seen lépp lawee noonu. amiin yàlla ngeen raw ñëpp. amiin di la ñaanal bu baax a baax a baax. amiin nag comme ni Boy Seye maa moom it parce mbër la mooy mbër. Mhm. moo ko wax ay trésor lañu. kenn duñu ay mhm. noonu. Mhm. bu dee wax naa bi loo xam ne savant la rek maa ngi jégalu ñëpp. parce que bëgg mu neex rek moo tax ñu wax. lépp jaar na yoon non lépp naaj li nga fi la yàlla may ndam muy mbër mu ndaw mbër mu mag ñëpp. gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo di leen jox dig daje di nuyu borom daaru moom kenn la ci man sama waay la sama lépp la moom su ma waxee rek moom xam na ma xam li naan toi et man ak yow xamante nañu bu baax a baax maa ngi nuy ki nga xamante ni mooy Aziz boo am Colobane Aziz Fashion maa ngi koy nuyu bu baax a baax xale la boo xamante ni nii dafa gëm boppam gëm liggéey bëgg li muy def defe naa ne ñiy dem kolobaan ñëpp xam nañ ko képp koo xamante ni bëgg nga solu bu rafet bëgg nga yëre bu rafet wala muy dàll ceinture lépp luy luy luy sañse rek boo demee ci moom dina la ko jox moom kontaan naa ci moom baax a baax di leen jox dig beneen yoon ak yeneen mbër ci jàmmaarloo jaa ngeen jëf Thank <laughs>